Patisen vous offre votre série Adja. ami sëfal bi wóor ci bépp cin te ëmb cëf ko bu sell te neex moo leen di ñaanal kóoru jàmm. <laughs> Need to dress fatiguée. Mami. Un Doudou, Dudu. waaw bah, doudou daa dem suñu école de. Adja tamit sama est-ce que c'est chaque fois comme ça Doudou, le ko def lu ko neex wax tout te va yow lépp ça va quoi tant qu'il s'agit de ton fils ça va. Pas Dudu xale la rek tey fecc fii suba way fële mais yo, doo wax jamais quoi il fait tout ce qu'il veut mais yo, ça va quoi tant qu'il s'agit de lui ça va. ah léegi kese keek naan la café balaa muy Tu le foo nekkoon Doudou heure bi doomu julit yep. sen fait ndogu yow nga ci bay tardé Dudu, fan nga kon heure bon. suñu bulletin je te demande pas combien tu as xam moitié bon moitié nul ami 10 soirs. 10. Dings oh là là non mais ça c'est le plus beau soir de toute ma vie <laughs> mais tu vois hein, ma chérie. mamie il faut faire attention hein, elle va te doubler. xanaa bon rôle ou ci sa grande sœur nga faut ci petite sœur nga def effort tuuti Tu hein? wala sax nga defal ko sa yaay. julli. Menunjang. xool ko li muy def yëgu ci dara nag yëgu ci dara ndax waroon naa xam service di seen seen adresse ba ñu ñëw ma néeg fetal nag fetal bi ma ci gën a ragal mooy fetalu silencieux ya. bu ne woon piw sax nga mën a daw xool ko garde robam ah yaay yaay jóg yaay yaay jóg de ma nga war a jóg dafa yàgg yaa fayda bay bëgg a dee may ma de may ma nag man may ma may ma. joge yoon waxa yoon nag mu ngi bëgg a jot. aywa ah, xam nga toppal fële amoo benn fële sa bopp te waroon ngaa ñëw fii lambar lambar yi ñàkk fayda ba amul benn fële ci boppam. Eh, xiiru faal gaa gi caw ma ko. ñàkk billaahi billaahi jom sax amoo yow amoo sax looy ruus. yow yaa am jom yow yaa am jom. waaye boo ma bàyyiwul. xaaral rek dig ma bàyyi nag xaaral rek. mami mbaa jàmm. tonton Madior loo bëgg a ndogu tey. déet man kay lu ngeen defar baax na. ah kon baax na. lii de mooy naafiq nag tonton Madior lu bëgg réere man mi nekk ci kër gi nag kenn laaj laajuma ah man duñ ma laaj man boo mel ni nga mel dina la laaj ah duñ ma laaj yow de waroon nga war sa reer li nga def ci biir néeg bi fii ah man ku nekk ci gereef ah jom Merhaba. Nasıl mı sürpriz bir? Vaa. Dërëf yow quoi dafa mel ni danga may nax. ah yow dinaa la andi bu fii wax la surprise de la nax yow tamit mos naa la dig lu ma deful. ferme, les yeux. Ferme les yeux, les. je te regarde. Tada Oui, so XB. Mais attends, attends, attends, attends, attends, attends. Papa À une condition. Mais à partir de maintenant, de cet instant, tu me promets que tu as moyenne. Au moins 11. Doudou, on a besoin. Je ne mën na ko mais du ko def dix la mais tu am onze rek comme ça man lu ma l'occasion de lui dire tout ce que je voudrais yaa imagine nga am onze nga am benn téléphone X ah bu am ah? <laughs> non je le garde ah, ah waaw waaw 11 rek. waaw papa yéen affaire lañ lay tamit la waaw man góor man amu problème ak moom de waaye ngóor moom merci rek. oh xanaa bëggoo dem Réfane. pa man café wu ma loolu de. <laughs> ah t'inquiète pas ma chérie xam nga léegi bi ay cousinage la. doomu nijaay doomu bàjjen doomu baay doomu baay la rek loolu c'est pas grave. te xoolal xam ni ñu def léegi boo demee ba nekk mag ba toll ci incha allah ki nga bëgg laa may. te boobaa xam naa ne sa yaay dina ci ànd. Hmm? on y

Mbour Mbour génnal fii. <laughs> Toos Maajo kañ sangu. yii ba xaw ma li. ah ragal loolu quoi. damay bay yàq sama koor. Mbour génnal fii. waaw kañ sangu. xam nga yoo xamoo lii. ñun naa ko de. ma ni man kay baax na ma yàq sama koor. Mbour ah yaa ñàkk ci la mbaa tamit <laughs> xaaral ma Mbour. jóge moom dugg ci ndox mi. jóge. moo kii day miir. kii de xàmmeetuñu fi mu nekk nii coono rek mën na koo jàpp. ndekaar reefaan ndakaar reefaan. mami ah gajaf nga de xamul mbalka ma ngay lox. Eh. ay waay wa ngeen taal sofaas bi de. hi hi hi hi hay Père Joge lii mënoon na ñaax de Duudu koor maandu waay Avec Diwan Décor, votre personnalité devient un style.